Euh, par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy wax mooy la revue de titres damay dama ciy junj rek mooy li ñu doon waxtaane sànq que c'est pas une surprise pour moi qu'un président de la République dem Touba dem Tivaouane du surprise pour man mi nga xam ni xam naa du république du fonctionner parce que république dafa dafa am temporel am spirituel. Mm-hmm. te su nekkee da nga gérer pouvoir temporel bi il faut nga dem lëkkaloog le pouvoir spirituel pour mën a avancer donc duggu leen c' est pas une surprise pour moi en tant que républicain parce que aussi li doon doon surprise mooy mu ñàkk fa dem su boobaa nag les gens mun nañ interpréter lu ci neex mais que ñu xëy suba ñu ne ñu def na première sortie officielle vers Touba c' est pas une surprise et c' est pas une première ça ne saurait être une première dans une république qui la république du Sénégal mm-hmm. donc dugg amul dara luñ ko ciy tàccu amul dara lu ñuy raw peut-être nag peut-être ñi nga xam ne dañ doon wax wax ju ñaaw ci ñoom jëmale ko ci ñoom peut-être foofu la ñuy xalaatee peut-être ñi nga xam ne dañ daan wax wax ju bon jëmale ko ci kilifa diine yi ñooñu peut-être ñoo ñoo am gàcce mooy ñi nga xam ne dañ daan wax wax ju ñaaw jëmale ko ci kilifa diine yi te bokkoon ci ñoom ñi nga xam ne dañu dañu dañ ko contrôle yëkkati doon wax wax ju ñaaw jëmale ko ci ñoom ñooñu peut ñoo am déception mm-hmm. mais ñi nga xam ne xam ne république nu muy fonctionner mënoo nekk président de la république te doo lëkkaloog ñooñu fa la budda parce que aussi suñu mën a bëggee am une stabilité dëkk bu stable ak leneen il faut que le pouvoir temporel di nekk en étroite collaboration avec le pouvoir spirituel donc loolu mooy nangam maintenant nag beneen jàngat bi ñu ci am mooy war nañ mën a xoolaat ñun suñu comportement par rapport au quand on est à l'opposition bien quand on quand suñu contre nit mooy li doyen doon wax war nañ ko mën a xoolaat c'est-à-dire contre nit ki warul tax nga tuddee ko yenn propos yi. parce que nit c'est typique c'est dangereux. ñoom it aussi war nañ mën a xoolaat seen taxawaay parce que ba mu posé acte boobu ñu baal ma rek dafa am ko def live sur YouTube mais amul luñ lu ñu yàqul suñu président de la ci acte bi mu posé dem Touba euh, téye loxo xalif bi am na ci ñoo xamante ni dans ce pays là. warmaaluñu suñu kilifa diine yi. loolu mosu leen ne et c'est pas bon warul demee noonu parce que nous sommes une société à part. mais la la majorité dañ ko rafetlu. c'est la majorité xam nga la majorité loolu lañ doon xaar. li gis nga gis nga gis nga soxna Maria Sénégal ay nit ñu baax rek a fi ne nga ak fii boor boo mënti féete. Mm-hmm. ay nit ñu baax parce que dafa am ay valeur yu nga xam ne dañ koy incarner. mooy li soxna maam Jaara doon wax ñu jox cër mag jox cër kilifa te taxawaay boobu gis naa ko et puis hier ce qui m'a beaucoup séduit ñaanuma yàlla mu nekk communication mooy la marché les pieds nus ça m'a beaucoup séduit comme tout talibé parce que yow soo demee Touba dootoo sol daal ah, man de su ma ko da ngay da ngay da ngay da laxasaayu da ngay gis nga ni li nga doon xaar ci njiitum réew ca taxawaay ba taxawaay boobu la andi. xam nga nit moom ku ne sa nga am donc loolu ma la maintenant nag maintenant nag Touba toujours en chantier hmm. mais dafa am ay urgence bon maa maa ñaanoon dem ñu may temps trois mois parce que aussi ndox mi il faut régler la question de l'eau de Touba hmm. loolu dafay laaj foofu nag du xaar. parce que dañuy waaj màggal d'ici deux d'ici quatre mois trois mois dañuy waaj màggalu Touba. donc ba mu demee ba toog ci kanamu xalif bi ba wax ca la mu fay wax li mu waroon def mooy conseil des ministres bii di ñëw ñu waxtaani mbirum màggal bi ba ndox mi ñu mën ko solutionné nga xam ni problème du am mm. c'est important parce que loolu aussi ay engagement la parce que ñaari ville yi mu dem mooy famille religieuse yi gën a mag parce que ñeneen ñi xeebuñu leen xam naa ni su fa jógee dina dem Kaolack dina dem Ndiassane dina dem feneen ak feneen bu jógee Mauritanie parce que la sortie officielle du ministre waaw Mauritanie bi c'est c'est c'est peut-être c'est par rapport à des à des coopérations bilatérales yoo xamante ni la situation de nga xam ne moo nekk ci frontière bi mm-hmm. donc il faut ñu dem xoolaat ñoom ñaar comment boo fa travailler ensemble donc loolu dañ koy sol saluer mais daal li ma ci xam mooy di rafetlu démarche bi di rafetlu comportement yi di wax sénégalais yi nañu ànd ak dal tuuti par rapport à leur déclaration ñenn ñi parce que ñi ci dégg ñu ci bari bitim réew lañ nekk ñu ci dégg man ñi ma ci dégg ñu ci bari ñuy wax taxawaay boobu bitim réew lañ waaw c'est-à-dire aujourd'hui voilà aujourd'hui peut-être seen marché boobu yàqu na parce que jàpp naa ni sax toog muy dox mi ñoom ñoo ko moomoon ñoom ñoo daan toog ubbi seen toile toog ci whats euh, YouTube bi di wax lu la neex pour mën a toog donc voilà aujourd'hui le Sénégal dafa dem ci benn pente boo xamante ni il faut ñun ñëpp ñu jàpp ci accompagner le pouvoir en tant que républicain nag en tant que républicain l'accompagner su baaxee ñu ne ko baax na su baaxul ñu ne ko baaxul mais soo ko defee woon nii moo gën parce que yaakaar naa ni foofu la ñu war a toll ci Sénégal surtout que il est jeune il a une ambition donte donte jël na jigéen teg fee eh, <laughs> donte jël na jigéen teg fe te yaakaar naa dina apporter les corrections nécessaires mm-hmm. euh, nañ ko nañ ko nañu nañu xool